asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah di 18 juin 2020 ñëw ak yéen ci yëglekaay yi sunu làmb la ni xëy dawra ko tey yëglekaay ba nag tey ki mu xëy dalal wala ko nga xam ne nii daal moom la ñu xëy wan mooy ki fi nekkoon promoteur bu làmb te léegi mu bàyyi ko muy Aziz Ndiaye la ko commencé ci atum 2005 ba jàpp 2006 ba nga xam ne nag ca la jeexal presque carrière promoteur am yëglekaay bi ñëw na ci wala boog moom moo ci ñëw nee na daal bàyyi na loo xam ne ni daal lu mu bëggoon la muy làmb comme promoteur parce que nag nee na daal passion am la bëgg-bëggam la woon waaye nag nee na amuloon pexe ba mu koy def parce que tam la ko ko tax a def mooy ndigal maanaam turandoom al amin moo ko ko tere woon ñu ne déet ne waay ka nga xam ne nii moom moo di Serigne Babacar Sy Mansour mi fi nekk tey ñëwaat tamit ne ko na bàyyi tëggum làmb bi nee na looloo tax tamit mu teg ko nële nee itam yemu ca de moom Aziz Ndiaye nee na tamit ànd ak mbër di ko gunge ci li nga xam ne moo di enceinte tamit nee loolu moom bàyyi na ko la ko ci gën a yóbbee nag nee na li am ba des mooy ka nga xam ne moo di soxnaam Mame Binta ba mu génnee àddina maanaam sénégalais yi fu nekk la nit doon jóge ñëw di ko wan cofeelam bokk moom naqar bi kon moo tax mu jàpp ne fi mu nekk ni daal par parloo wala muy ànd ak kenn di dugg ci géew moom bàyyi na ko ñu ne ko léegi Balla Gaye noo koy def mu ne Balla moom sama rakk la sama lépp la li ñu séq man ak moom ci wàllum cër ak wàllum doxalin bu rafet ñaan yàlla sàmm ko rek waaye li am ba des daal jàpp na ne Balla moom léppam la moom itam léppam la waaye gunge mbër ci biirub géew moom moom Aziz na loola moom dèjà dal dina koy tegg ne la ci suuf ko def ba tey Aziz Ndiaye mooy wax ci waxtaan wu yaatu woo xam ne daal tey ki nga xam ne nii moo di Aziz wax na ca muy mbirum CNC bi la jàpp na daal kii di Alioune Sarr moom bu doon am na xalaat bi mu koy jox wala ay conseil mooy mu dem rek bàyyil gars yi seen làmb ji parce que daal ne na fi mu nekk nii moom lool dong dong mooy li mu war a def ñëw na tamit ci atum bi nga xam ne ni daal jox nañ ko lu toll ci wàllum na lu yaatoo yaatoo yaatu dañ fay jóge wala boog ñu des ci yëglikaay ba nga xam ne nii moo di sunu làmb keneen koo xam ne nii moom Abdou Bakhoum lañ koy wax di la mu wax daal état ba la xëy tey dal ci kaw nguur gi la jàpp na fi mu nekk ñi daal ñoom ñoo jàppalewul waa lamb ji lamb ci boppam la état du Sénégal jàppalewul du samay wax Abdou baaxum moo koy wax ko ay xalem wala boog koo xam ne mbërëm la wala ca des tamit dib dëkkandoom di booy Niang ak Ama Baldé yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci ñoom mu mel ni nag ñaari xale Pikine yii moom seen bëgg-bëgg lenn la kii nga xam ne moo di Ama Baldé la mu bëgg mooy détrôner Modou Lo nangu la nga xam ne moo di roi ka nga xam ne moo di Boy Niang tamit bëgg-bëgg ba mu am mooy taxawloo ka nga xam ne moo di Balla Gaye mel ni ki xale Pikine yooyu tey na ci ñoom keneen xam ne nii seenub dëkkandoo la dëkk ca Pikine di Tyson 2 moom itam lay problème am daal fi mu nekk moom la ca des mooy adversaire yi mu war a bëreel tamit daa mel ni wala ñu xaw koo ragal yëglikaay bi xëy tey ñëw andil ñu ko nga xam ne moo di Tyson 2 leneen loo xam ne ne nii wala keneen koo xam ne nii mu ngi ci yëglikaay bi di sunu làmb muy naar ture naar ture tamit xëy na tey ñëw ci aw waxtaan woo yaatu woo xam ne ni daal seq na ko ka nga xam ne moo di Abdoulaye Dembélé moom naar ture nag mu nga ci états ñëw na ci digganteem ak waajuram tubaabu joor ñëw na ci lu yaatoo yaatu ci parcours am bi nga xam ne def na ko ci làmb jàpp na itam xëy na mën naa bañ a saf suukar wala mu saf xorom waaye loo ci mën a dégg daal ñëw na ci Modou Lo tamit wax na xalaatam ci moom jàpp na ne day Modou loo amul benn mbër boo xam ne ni Modou loo mënu laa daan ci làmb ji moom naar ture daal loolu la ñëw na tamit ci promoteur nena nee na li am ba des daal lamb ji bu amee ay jafe-jafe naar ne na du kenn ku dul promoteur yi lamb yi naar Touré ma ci États-Unis nag moo wax jooju wax ci yëglekaay ba nga xam ne moo di sunu làmb dañ fay jóge dem record record moom kan fay fekk mooy moo Lo mu nga xam ne ci moom la Naar doon wax ak juróom-ñaari mbir yoo xam ne daal def na ko muy yu doy waar ci li nga xam ne nii moo di làmb ji yëglikaay bi nee na ba ca njëkk mooy derbi ba nga xam ne moom la seqoon ak Papa Sow mu nekkoon bés bu tàng tàng derbi wu Parcelles Assainies ba Modou mu ca génn ak ndam lu rëy ñu ne déet ne waay mook booy kere tamit Modou gagné ko daal gagné bu doy doy waar ca kalaf ba ñu ne déet Modou ñëw confirmé kalaf ba daal di daan ka nga xam ne moo di Balla Diouf ñu ne ko ca ngay yem Modou génnaat dalee ka nga xam ne moo di bàyyi mu ñoon bu caaroy wanati ko boppam ñu ne fa la Modou yem mu ñëw def Eumeu Sène lu doy doy waar ba tey la ko waray wax maanaam dribble ba daal ala Ronaldinho daal wala boog ala Ronaldo lañ ko tudde daan ko jëli bu rëy ñu ne déet na waay mu ñëw digganteem ak Gris Bordeaux yëglikaay bi ne intelligence en mouvement maanaam daal yeewoo xel gu ànd ak am xarañte la fa wane daan Gris doo ñu ne ko déet fa ngay yem du gën a yokk maanaam daal ñokk li jëm ca kaw dajeeg Eumeu seen ca bés boo xam ne nii xëccoo roi des arènes la woon Modou kawate ko daal di jël couronne ba lool moo tax yëglikaay bi tuddee ko juróom-ñaari mbir yoo xam ne yu rafet rafet la wala yoo xam ne yu neex la yu mut loo def leneen loo xam ne nii wala keneen koo xam ne ñoom fay Faye lañ koy wax président anals lañ koy wooyee maanaam daal ay amateuru simple la jiite duudu nag moom ay combat la xëy tey di ko wax ba ci jëkk mooy booy Niang Balla Gaye numéro 2 daa jàpp ne loolu combat la boo xam ne mu ne su koo bañta faw dafa war a am ko ak ban mu ne la B52 de Mbour Bombardier ak ki nga xam ne nii moom moo di tafaatin borom takk ci bu bawal nee lii tamit bés la boo xam ne organiser ko rek la ñu war a def moo doog amaa itam jàpp na ne loolu daal lool mooy ay affiche am moom duudu fay ba tey ci record Serigne Ndiaye numéro 2 mu nga fa ak li nga xam ne nii mooy juróom-ñaari gala yoo xam ne jongante na ko ren gagné ya ñàkk ya ca des mel ni kii nag 57 pour cent de réussite la yëglikaay bi jàpp ne daal moom la xale bi nga xam ne mu nekk écurie Fass def ren ci saison bi nga xam ne moom la ñu nekkoon ba saison ba taxaw waaye defet ya nag ne nañ daal ci boo xoolee ci 48 heures teglante na ca lu war a mat ñaar ñetti defet moom Serigne Ndiaye numéro 2 record a xëy tey ñëw wax ñu ko ci gëstoob ka nga xam ne nii moo di Abu Nduur mel ni kii daal kon tey loolu moo fi ñëwoon ci yëglikaay yi jàppal muy sunu làmb wala muy record salaamaaleykum mbokk yi suivre Leewtoo TV ñi leen nuyu bu baax di leen jaar di leen jaajëfal di ñëw ak seen ak yéen seen revue de l'arène ñaari fan yi Ndeye Comba moo fi nekkoon tey nag euh, ma ñëwaat ñëw ànd ak yéen ci li nga xam ne ni mooy euh, jàngat bi Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay ay sa maa mbaa nga jàmm fan yi foo nekkoon. sant bu wér ak nekk amoon na euh, jafe-jafe bu ndaw rek may sant yàlla. Eh, mbaa lépp mbaa lépp tuuti benn léegi rek. tuuti benn. kon alhamdulilah yàlla na gën a continuer. Amine Babacar ñu ñëw léegi ci li nga xam ne nii mooy waxtaan bi ànd ak ki nga xam ne mooy Aziz Ndiaye fekk suñu lamb moom nag ñëwaat na li nga xam ne nii mooy euh, carrière promoteur am li tax mu arrêté ak li nga xam ne ni jot na ko see gagné ci ci xaalis ci sponsoring nga yëpp. Aziz Ndiaye daal ñu waxtaan mu mel ni kon tey daal moom moo xëy na ca xëtu njëkk sunu lamb comme ni ñu ko waxee ngardaaju fa wax na li ko arrêté loo maanaam boo xoolee entre 2005 ba 2016 mu ngi ci lamb ji comme promoteur mais su ma jël na ci yoonu bàyyi li ko gën a bàyyiloo promoteur gi donte lu mu bëggul la waaye bokk na ci ndigalu ay kilifaam te defe naa nag moom loolu dong lañ lay doyee parce que ñun ñëpp yow muy man muy moom ku mu mën a doon ku ne am nga kilifa lenn nag ki am nga nangoo dégg ndigali kilifa nga jëfee ko ci bu la teree naan dem na ba ay kilifaam rawatina sëriñ Abdou Aziz Sy Al na yàlla yokk ay leeram taaf ñu si barkeem di kilifaam ñu tudde ko ko mu dem ba tere ko pour mu bàyyiloo ko muy bàyyi loolu moo tax mu bàyyi loolu yaa ngi nekk loo xam ne tamit defe naa ne duñu mën a def leen lu dul rafetlu ko parce tamit ñooñu suñu ay kilifa tey lépp luñ ñu ne bàyyi leen ko wala taxaw leen ci yaakaar naa suñu njariñ lay doon mais du doon mukk suñu ay lor parce que li tax mooy ñoom du ñu waxee seen bakkan ñoom lu ñuy wax yàlla moo tax ñu di ko wax ak njariñal doomu aadama parce que yàlla moo def ci ñoom loolu ba pare kon loolu defe naa Aziz loolu mu def am na solo trop ñu ne tamit ci milliard bi nga xam ne ni ci atum 2013 am na ko ci wàllum sponsoring ak lu topp muy koo xam ne tamit loolu boo maîtriser nu ko maanaam man na ko te itam am na personnalité bu ñu koy def parce que loolu dafa am solo trop euh, nekk na nit bi nga xam ne wax dëgg yàlla di nga ko nangul xarañteem di nga ko nangul nangul liggéeyam di nga nangul tamit personnalité yooyu yëpp boo dajee nag mën nga dem ba benn moment li ngay liggéey mën nga ceeg ci niveau boo xam ne bu kawee kawee kawe la ñëw na tamit seen yi dootul bu ngeen bëri ci biir enceinte parce que li ko yóbbee mooy bi soxnaam wàññeekoo nit ñi ni ñu ñëwee defe naa boobu waxuma la mu bokk wala wala ñi mu bokkal mais defe naa la nga fay fekk ci ay doomu aadama pendant presque un fu ne xeetu sénégalais wu ne ñëw na fa kilifa diineeg ñëpp ñëw nañ fa kon defe naa loolu nag bu la ko nit ñi jiyee xëy na te mbirum làmb ku ne xam ne par la voilà kon xëy na ngay a ah, wàcc ci aset di ànd ak mbër te xaw a doy waar mais terewul relation bu rafet bu mu am ak la muy rakkam di ko xelal Balla di jëfe ñu ànd loolu moom mu ngi koy sàmm te ñaan yàlla ñu ko koy ñaanal yàlla tamit yàlla sàmmal ko mais daal xam naa ne nit la ki nga xam ne daal mën naa ne ah, ci ci lu ma mën a wax Aziz Ndiaye exemple la ci jeunes yi ak yeneen jeunes yu ne ci Sénégal yoo xam ne tey mën nañ leen a citer ay ñoom Bougane Gueye ay bëri nañ bu leen doon dinañ parce que li tax mooy dañu jéem pour nekk dara pour def dara ci Sénégal tey yàlla dimbali leen ñu ngi doxee doxin woowu kon ñu ngi leen euh, ñëw na ak waxtaan muy euh, naat léegi doomu Babou Dior bëri fii ba jóge fii daal demal fa la ci États-Unis moom nag ñëwaat na ci carrière mi nga xam ne jàpp bu baaxul torop it bonul ci do nga xam ne jot na ko fay def mais tamit ñëw na ci nga xam ne mooy rëg-rëg ak qualité yi mu am waa Naar Touré tey nekk doomu tubaabu joor ñu ñaanal way juróom yàlla na ko yàlla jégal taxarew ko aljana bépp julli bi ne ci suuf ñëw na tey ci waxtaan bu yaatu wax ne yàq seex na ko sunu làmb waaw ah, waaw carrière bi xëy na lépp bonul waaye lépp baaxul loolu nag parce que li ko indi mooy dafa teel bàyyi làmb ji parce que fi mu commencé fële ci làmb ba ñu koy xàmmee mu ngi doon jàng di soxla yeneen diplôme yi xam naa bi mu fréquenté États-Unis nag di dem ak ñëw nekk ci yeneen domaine yoo xam ne permettre wul ko muy wàcc si làmb di bëri moo tax xëy na mbirum saison euh, carrière bi mu jënoona waaw rëg-rëg itam lu mu la li mu wax si moom defe naa ne defe naa ne ci làmb moom euh, kenn mënatu leen présenté waaw parce que dafa loolu seen jëf moo leen ko may quoi maintenant Touré daal nekk na li nga xam ne nii moom ah am na nag wax bu mu wax boo xam ne xam na ma jaaxal que promoteur yi lamb ji su amee problème ñoom la loolu daal xaw na ma jaaxal man. est-ce que tam Babacar euh, waxeewul euh, jamono yi nga xam ne tey Gaston nangu woon na ko demoon nañ ba toll ci sur enchère diggante concurrence promoteur ak promoteur. nit nekk ci lii nga fay mbër lu ko ëpp wala nga fay mbër ak million yoo xam ne ni keneen ka ci du ko mën a récupérer ci yow est que du surenchère boobu ñu defoon ay temps concurrence bu mag bi amoon daf lool waxee ñaw yaaka la waaw loolu moom bu dee loolu la dama siy ànd ak moom parce que loolu Gaston Mbengue ci boppam dem na ba benn moment mu nangul ko boppam ñu ñoom xëccoo ba ñuy xëccoo moom nar a yàq làmb ji parce que dañu demoon ba benn moment concurrence bi metti demoon nañ fa sax ay da nga dégg sax yeneen mbir yoo xam ne da doon dépassé sa làmb ji te lu ko waraloon mooy xëy na xëccoo ku ne bëgg a tëgli ki ne bëgg a tëgli mais ndekete booba xamuñu ne ñoom ñoom ñoo bokk wara bokk nday bokk bàyyi ñoom promoteurs yi defe naa bi ñu ci rendre compte nag ne mu xëccoo amatul de mais ni mu daan méttee bay am yenn débordement yooyu defe loolu amatul mbir nag mbiru làmb daa nekk mbirum xaas ba nga xam ne bu ci xeex bu métti amee rek dina am ko mu dul jik wala mu am lu mu yàq. est-ce que c'est pas trop tard ndax ay millions yoo xam ne ni tey ah, parce que tamit boo xoolee tey actuellement nii <laughs> yenn mbër yi boo xoolee combat yu bëri tëë taxaw wala yenn mbër yi nangam sam parce que tey exemple nga ñëw ay sa fay fay la kasewu 100 millions nga bëree ko ñu daan la te yow buñ xoolee ci yoon sa kase xëy na yeggagul foofu parce que dama naan mbër méritoon sa 1 milliard mais bu fekkente ne yeggagoo fa tamit xëccoo tax ñu yóbbu fa nga ñàkk boobu combat ñu bëgg la tëggaat voilà da naan bi may daanu 100 millions lañ ma fayoon kon même bu dee dama voilà nañ ma jox 90 millions kon te promoteur ba xëy na bu keroogee du du ca génn loolu mën na dem ba am lu mu yàq te loolu mooy après actuellement sax li nga xam da nga koy faral di mais tey kenn ki moom mi ngi def jéego pour doon roi des arènes combat royal la bëgg bëre keneen ki di ki nga xam ne ni mooy Boy Niang moom nag Balla Gaye la bëgg bëre te Balla Gaye ku ne xam na li mu def ci lamb waaw muy ñaari xale yoo xam ne dañu am mérite muy Ama muy Boy Niang parce que li tax mooy ah, am na kuréel bu ñu bokkoon wala génération boo xam ne bokkoon nañ fexe nañu tey ba xeex ba ñëw tey dugg ci biir mag ñi parce que loolu mooy li am lu mën a xew loolu am na tey ama mook Modou Lo defe naa ne foofu xëccoo couronne roi des arènes moo fa am kon kooku mënatoo ne ku duggoo ci biir mag ñi mu nga ca biir Boy Niang tamit donte am na jafe-jafe ci digganteem ak Lac de Guiers numéro 2 waaye ku bëri ak Lac de Guiers numéro 2 yaa ngi ca biir mag ñi tey ñu bare bari ñu ngi naan digganteem ak Balla Gaye combat la donte ca côté ba am na ñoo xam ne dañ naan du combat muy ñaari xale yoo xam ne daal xam naa ne ah dafa mel ni seen diggante ak mag xalaat naa ne dana am te boo amee nañu suur ne ay xale ñoo ñëw fekk si leen te itam li ñu bëgg mooy jël seeni place taxawee ko waaye nag ñu ñu suur itam ñu ay ñeexu ñebbe mu loolu ñeexum ñebbe Balla Gaye numéro de kasaalika naka noonu waaw fulla ak fayda leen di daan ak liggéey bu wóor a wóor waaw liggéey moom euh, lu waaye nee nañ ku liggéey rek fayeeku dañuy jéem a liggéey rek te yàlla mu daal di ci euh, def euh, barke Babacar dañuy dem seet ki nga xam ne ni mooy Tyson 2 moom nag mu nekk benn xale boo xam ne macha allah ay talentam làmb yëpp nangul lañ ko ko mais tey pour mu bëre problème la waaw loolu moom am na waaw ah, mbër la bi nga xam ne wax dëgg yàlla talent pur Tyson da am na ko parce que mën naa bëri mën naa xeex te bari na bés yu ñu ko séentu mu ñëw wane ca boppam yaa ngi dégg mais tey am na problème mu adversaire

yàlla defee corona bi jeex mais nañ ko trouver benn adversaire pour mu bëre parce daa bokk ci mbir yi ah waaw. waaw Babacar bu fekkoon bëri na normal rek tey waroon na dépassé fii la ñuy wax ñu dem ki nga xam ne ni mooy Abdou Bakhoum moom nag daa ñëw sànni xeer ci ni ñu koy waxee toolu état bi ñu ne nag ñoom jàppale wu ñu li nga xam ne ni mooy làmb. waaw Abdou Bakhoum loolu la wax nit nag ku ne am nga droit xëy wax sa gis-gis parce que la tax mu wax loolu ba la mu gis ba wax loolu xam na xëy na xam na ko. yaa ngi dégg ñoom koy wax tamit muy état bi la Abdou Bakhoum wax bu dee lu nekk la comme ñoom jàppale wu ñu làmb ah nañ ko jéem a jàppale parce que làmb suñu sport national la te bëri na yu mu yore ci réew mi di leen fay kon defe naa ñooñu itam jàppale leen dafay doy parce que ma naan tabax stade yi kese du doy dafay ànd ak ay mesures d' accompagnement noonu la ko tubaab di waxee maanaam accompagner promoteurs yi ci la ñuy def pour ñu mën a am doole pour mën di ko def lañ leen war a teg ci ay sart itam ci réew mi di ko doxee ñu teg leen ko ñu di ko mën a matale parce que bu loolu amee rek pour mën sport yëpp ñu defee taxawoo ko noonu wala lépp lu ñu indi yëngu te ñu muy lu développé réew mi ñu pousse ko am njariñ parce que euh, ki taxaw fee yokk wàññi la emploi yow état war nga ko mën a gunge ci sa doole ak sa xam-xam mu mën a avancer gën a jëm kanam quoi. Babacar ñu dem euh, record fekk fa ab Ndour ab Ndour tey ñëwaat ci Modou Lo ak euh, les sept merveilles la ko tuddee mooy euh, sept combats xam ne ni am na lu mu marqué ci carrière wu Modou Lo mooy digganteem mag Papa booy Boy Kayré Balla ba ci ki nga xam ne ni mooy Baye ma Eumeu Sène premier combat bi Gris Bordeaux ak bu muy daanaat Eumeu Sène nekk roi des arènes waaw ah, mu mel ni moom loolu moom bu bëggee dégg-dégg loolu Abou Ndour xëy day indil ñu ko nekk na ay bés yoo xam ne ci carrière Modou Lo xam naa bokk na ci li ko combat bu ci ne ci demee lu mu ko yokkal ndax diggante ak Papa Sow keroog ku ne gisoon ba mu tàngoon ci adversité bi lépp bi mais dafa gagné combat bi lu mu koy fu mu ko yóbbuwaat ba la ci carrière am tamit ku ne xamoon na ne boobu Modou Lo dugg Fass daan Papa Sow ñëwaat war a bëreeg Balla Diouf mu nekkoon derby bu doy doy waar gis nga mu daan Balla Diouf loolu tamit yokkaat gën ko yokkaat ñu ne déet na mu per ci Balla Gaye ñëw jël Baye Mandione xeex ak moom bëri ak moom waaw donte wax am na ca waaye daan na Baye Mandione ci li ñu gis ñu ñu continuer mu du ñëw jël Eumeu Sène wan ko lu doy bëreeg moom bëre bu méttee méttee daan ko jël bu rëy rëy jël Gris Bordeaux defaat même chose muy lu doywaar waar ñëwaat ci Eumeu Sène gagné ko par kaw nekk roi des arènes mel ni kon moom itam li mu wax sànq rek mbër la mi nga xam ne daal xam naa ko ku bëgg daan di nga teel a xëy de waaw non di nga teel a xëy parce que mu loolu li mu dajale ci karité mbër dafa bëri ay sa macha allah waaw du mbëru caaxaan waaw waaw ah, Babacar ñu dem ci Serigne Ndiaye 2 Serigne Ndiaye 2 nekk Fass mais tamit euh, def euh, li nga xam ne ni mooy lutte simple benn temps boo xam ne bu compétiteur bu frappe mi ngi ci simple bi tey nag euh, ab nduur di ñu ci set gala yi nga xam ne def na ko am na ci quatre trophées waaw loolu moo lay wan ne moom tamit ren saison bi bi mu ubbee ci lutte simple bi ni mu ko déparé moom baax na bi la commencé di di nekk na xale boo xam ne tey ci lutte simple bokk na ci ñi nga xam ne ñu ngi leen di lim parce que tamit macha allah taxawaay mate na ko xale la te gëm na ko te mën naa bëri te tam gis naa ne am na jàppale bi léegi kon moo lay wan ne kon loolu mu def tamit lu am parcours bu baax la ah parce que lu mu dee rek gagné na ci sept de quatre finale ne affaire yi du yomb parce que li ngay bëgg waaw <laughs> te du saa yu bàyyi rëbbee nag jàpp mbët ay sa des fois nga dem sax doo gis gunóor waaw waxatuma laa kon ñu koy féliciter di ko encourager rek tamit quoi. li mënti bëgg moom la gor bëgg Babacar moo tax affaire yi mun ta yomb ñu jeexal ak ki nga xam ne ni mooy Doudou fay Doudou Faye nag eh, nekk tey ci ANALS di président ANALS moom nag tam ñëw na joxe li nga xam ne mooy affiche am nee na Balla Gaye Boy Niang Tapha Tine Bombardier ak ki nga xam ne mooy Modou ama waaw muy affiche yu am solo loolu moom defe naa fi mu nekk nii ñëpp moom la ñuy wax Doudou Faye ñu koy nuyu di ko ziar ak kuréelam boobu di annals muy Modou Lo Boy Niang loolu nit ñaa ngi ciy wax chaque jour nit ñaa ngi ciy wax Tapha Tine B52 loolu tamit defe naa ne revanche lay doon parce que dañu bëre woon Tapha gagné ko par décision médicale kon tey il est l'heure que Bombardier war a jël revanche am ki nga xam ne nii moom moo di ba euh, ban moo ci desaat Modou Lo Ama ah, itam loolu defe naa ne la ñuy ñaan yàlla kay mooy ka ko tëgg yàlla dellusi ko ci suñu biir ak jàmm ba mu mën a continuer loolu parce que waxoon na ba tënk ak ñaari mbir ba xaalis génn muy lig Nicolas ñu koy ñaan laal rek kon defe naa loolu mu tànn moom dut fa itam amateur yi boo leen ko joxee duñ ko bañ waaw Babacar ci loolu ñuy tàggoo ñi nga xam ne nii ñooy internet yu suivre Leewtoo TV ak fu ñu mënti nekk bi lëmbee àddina muy coronavirus bi wa sallam lëmbee na àddina waaye nag nañu xam ne rek yàlla moo fi ne te moo ñu bind te li sëñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum waxoon rek noonu na boo waree dee nga reb na mbelentaan sànq sax bu ñëwee da lay faat waaye nag du tere dañuy préparé di pare maanaam di moytu parce que loolu moo ñu war yàlla waxul kenn nga xar wala nga rey sa bopp ku gis loo xam ne jàpp ne li mën na laa gaañ wala mu faat la sax da ko war a moytu booba yàlla ñëw ko dogalam ci la muy yebal ci yow yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi def a bu baax baax moom soppe ay mbeex waa wokaam di moes ñoom tuuti yaay sar xadiros ñoom ñëpp ñoom ndongo faal xam nga maa ngi leen di nuyu di nuyu Balla Gaye tamit ca Italie Cissé ca Brésil doomu nday général Malika di ñaan ñëpp am jàmm ay sa barke yonent bi sallallahu